qui jeudi 12 mars ministère de la santé et de l'action sociale jot institut Pasteur résultat examen yi may suspect positif nañ qui coronavirus Manam am coronavirus Juromika, yo yo ñi nga patient bi ñu gis diagnostic déclaré ko positif foofu ci Touba juróomi kaay ñu ngi maladie infectieuse service maladie infectieuse pour seen traitement ci examen yi ñu def am na résultat boo xam ne cas suspect la bu ñëw négatif donc depuis le 2 mars 2020 nga avons ne ci premier cas Sénégal a lu 10 cas confirmés au total ci 10 cas yi ñaari cas fecc nañ leen bañu genn a ñetti 8 cas donc nous sommes actuellement sous traitement service maladie infectieuse ministère de la santé et action sociale a ngi ñaax askan wi ñu dal ba pare damay jox kàddu gi legi léegi docteur Bousso pour mu ñëwaat ak yéen ci tubaab ak ci wolof ci ni ñuy toppee cas yooyu notamment cas bi ñu suivre cas cas suspect yi notamment cas bi nga gis nañ ko ci am nañu fukki nyari euh, coronavirus yu ñu am donc ci fukki yi euh, ñaar yi wér nañu ba génn ñaar ñi mooy ki njëkk mooy benn ku jóge tugal ak euh, ñeenteelu cas bi ñu amoon moo xam ne dafa Angleterre. donc juróom-ñett yi service des maladies infectieuses de ñu ngi leen fay di leen donc docteur ngi leen di bi am ñu xel parce que dafa nekk suñu euh, bu sénégalais boo xam dafa Italie jóge Italie Sénégal euh, bi mu Sénégal mu feebar fii bi mu examen coronavirus bi après nag gis nañu dafa donc am na juróomi nit ci waa këram yoo xam ne wàll na leen euh, ñooñu ñu ngi hôpital pour ñu leen di faj euh, ci wàllu waajooju nag gis nañu am na euh, juróom-ñaari ak benn fukki non juróom-ñaar fukk ak benn nit yoo xam ne nekkanoon ak ñoom te pour ñun ñooñu il faut ñu seet leen parce que ñoom mun nañu am après feebar bi te gis nañu ci ñooñu juróom déjà am nañ feebar bi donc suñu équipe yaangi ngi ministre de la santé joxe na ndigal ba équipe yi dem nañ sur place ñi ngi top pour set ñepp ñi nga xam ñoo ak mom pour mun leen mun leen fajj li ma mëna wax ci ñi nga xam ñoo taxool ñëpp si fukki kay yi am nañu junni ak euh, ñen fuk ak ben yo xam dañ leen doon set ci lim bobu ñi nga xam ne ñoo tukki won ak tuba bi ñëk bi ci roplan bi ci 25 euh, février ak ñi nga xam ne ñoo tukki won ak anglaise bi ci Turkish Airlines

ci loolu war nañ ci dolli ñi nga xam ne ñoo tukkeeg suñu naataango bi jógee euh, suñu euh, mbokk bi nga xam ne moo jógee Italie bi ñu xam ne ak kii la voyager euh, Royal Air Maroc et aussi dinañ xool ñu bees ñi nga xam ne moom la ñu am mooy juróom yu bees yi tey suñu équipe yaa ngi foofu Touba pour xool ñan la ñu taxal donc pour ñu mën a saytu ñoom ñëpp te di rappeler ni que ñoom ñëpp il faut ñu xool leen ci lu mat fukki fan ak ak ñeent di jeexal rek ñaax ñi nga xam ne ñoo tukki jóge ci dëkk yooyu dëkk yi nga xam ne dafa am coronavirus bi ñibbisi si Sénégal ñu bàyyi xel si seen wér-gu-yaram parce que feebar bi boo xoolee ñi la gën a jege lay njëkk a dal say doom lay njëkk dal say jabar lay njëkk dal say pap wala say yaay donc bu fekkee vraiment ñoom war nañ leen sàmm il faut que ñoom bu fekkee dañ ñibbisi nañu gis nañ benn signe gis nañu lu jagadi seen yaram nañu wootee si numéro d'urgence du ministère de la santé am na équipe yoo xam ne mën nañu ñëw jël leen isoler leen faj leen et yaakaar nañu incha allah dinañu am tan bu baax mais loolu dafa am solo parce que bu ñu ko deful rek feebar bi dina tas si dëkk bi te euh, li xew ci yeneen dëkk yi muy France muy Italie muy euh, ay Iran yëpp mun na dal Sénégal donc il faut ku nekk si wàll bi nga toll nga assumer sa responsabilité xam ni am na wàll boo war a euh, jouer ba nga xam ne feebar bi dinañ ko mën a téye ci Sénégal.